ventouse dafay dindi métti yi nit yi di am seen yaram yëpp loolu moo tax sportif yi gën a mag ci àdduna bi di ko jëfandikoo pour moom seen yaram di ci def lu leen neex ventouse nag moom ñoo ngi koy woowee tamit ijama te jamaa thérapie traditionnelle la boo xamante ne ay ventouse yu bëri la ñuy def ci seen deru yaram pour mu dindi lu bon li fa nekk yëpp ijama nag moom moo ngi sokkee ko moyen orient ca dëkku naar yi te baax baax yi muy def ci yaramu nit tax na ba foo dem ci àdduna bi di fekk ñu ko fay def te li ni mel dafay tax circulation sanguine bu nit ki dafay gën a baax dafay wàññi méttitu yaram yi ba dindi ko jàppale ki nga xamante ne yaram bi dafa diis ba day tayal def dara dafay dindi courant ak yaram bu tëccu traitement la tamit ci dépression te it dafay wàññi stress te li mel moom dafa baax ci mettitu bopp mettitu ndigg ak yax yuy metti moom nag boo bëggee gën a yokk sa wérgu yaram nga koy def te li ni mel waa maison Ventoux Sénégal jàng nañu ko ay at daal di ko tàmbalee def ci Sénégal te boo leen bëggee ñoom ñu defaral leen li ni mel mën ngeen leen woo ci 77